wax naa la kalpe moo koy doo bandi. ça va yow gënal kalpe bi gënal kalpe bi lan la wax. man du ma leen sax wuyu. saa yi ki day génne kalpe bi. boo wuyu lan xool dañ lay day génne kalpe bi nga naa ma nii. mais ça va yow mais yow xam. te doo bandi laa la wax. am na benn avant tout. waaw jëndee ko vingt deux millions may treize mille doo bandi yow. kalpe bi day génn laa la wax. kalpe bi day génn.

li ñuy waaye moo gën a yomb ci li ñuy wax ak yow day génn wala du génn da nga ko na wala wala na wala yow li boy wuy leen ma sama doom wuy leen ma non père père sa doom yaa ngi kër ga père kii day génn doom man ci nii wala ma ngay wax ak yéen dimbali leen ma ngir yàlla dama leen koo ñaan li ngay dugg wuy ma sama doom mag buy wax ak xale déglu leen ko waaw kay ndax lii du sutura même bu fekkee daa jël seen kalpe it ngeen def nank mu jox leen ko parce que kii kenn la te yéen ñaar lañ leneen lu ngeen ko fi def yoon mën naa teg si yéen loxo te loolu jaru ko. père bu ñu neexoon explication du am. bari hmm. dañ koy rey xam naa ko te bu ñu ko reyee. mën nañ koo rey te coow lu xam naa ko parce kii ku jël xam naa ko xam naa ko mais leen koo ñaan. père yaa dugg si risque. waaw baax na naa dugg si risque. Eh, loo bëgg ñu ko. waaw bàyyi leen maa ko maa maa ko garanti. maa ko garanti. Ah, sax ba taxawal xaar donc man sa baay laa te mënoon naa lan romb ñii daal di lay mbugal ku la xool ni nga mel nii macha allah tuuti nga macha allah buñ la dooree nga dee say waajur ñàkk la gis nga ay fabat ay jël ak yooyu dañuy fen non déedéet yow yaay yow yaay fen ni la gisee nii sa yagaaral gi yaay fen xam nga la laa lay ñaan al ma ma ni ngay ak man faralu ko kat ay pierre ak yooyu yëpp ay waxu ba rek dimbali ma ci yàlla ak yonent bi dama la ko ñaan ngir laahi wa rasulihi bu jëree sax ma sukk aal ma kalfe ci pet comme ni ñu koy mag laa waaye damay wax daan ci pet ma jox leen ko jàmm ñu am defar bu fekkee da nga ma jox sax ñaar boo xamul ñaar mooy dara. oui non àll leen ba eh, eh, ko kii sunu kalfe la yor. bu ne leen ko ma ah, ko dañ ko jox rek. moo ko géré kay. jël naka la da ngay bàyyi jël jël baaxul ah kooku kii moom di ko du sàcc dawal xaar ci biir. eh père. xam naa seen affaire yi ñu ngi jëm. eh, eh. defal ndànk yaa ngi gaañ du lim def leen nank waaw mu ma woon du ngeen si jot de. defal ndànk rek seen kalpe yi ok lii leen kii yeeg yooyu xam nga. xoolal Kalpa mi mankana tan taw. Eh tara tara. Kalpa mi mankana tan Kalpa la jolo jolo. Boy, père sunu xaar. Kalpa ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ay ay ay ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay. Kupimy dopiero krew, ja gi daal. dunku gi daal daa dafa fii de muy def daa mel daa am ñu fi ne di répété rek. waaw yow mujjee nga dem hôpital. yow nag papa looloo la yàq ñetti fan ci tey nga feebar nii di jàmbat sa ndigël demoo hôpital pour lan loolu yow nag hôpital daa ah. waaw moom xanaa yii la la kase eh, yónnee woon mbeen mi ne Italie. la gisoo ma nii mbeen a baax dina la yónnee yeneen nag dinaa ko def ci nii ba mu baax. waaw na moom daal rendez-vous. ah sa baay ah. Ah, xam nga bëgguma laa wax dara day faatu. dama laa bëgg dama laa bëgg boo tey rendez-vous ne ma papa kat dama am rendez-vous ma mbala nga dem beneen beneen bi ci des mooy mhm. démb su guddi yaram wi doon duux li ma la wax ci ndunkurung gi rek daa mel daa am ne di répété mooy <laughs> mooy sa wàllu takk gi mhm. ndaxte boobu ba léegi waa ji maa ngi déggante ak moom te ku ne xam na ni weer wii dugg nañ ci te ay fan yu néew ci des sa yaay moom nattam yaag xaritam yam ko waroon a wax yëpp ma ngi leen koy wax mhm. kon jaadu na nak ma gis waañ waaw wax dëgg yàlla nag ah kii bëgg sama doom moom war a fanaanoo ak yow giiru dund mën naa la ko parce que ñaanuma yàlla takk la ngay dellu si ñu mu takk la sax ngay dellu si laa bëgg a wax waaw moo taxoon daal su ma ko mënoon a gis bala bis bi dina ma daal di gënal daal waaw parce que yëfi kilifa rek laa ko bëgg man boo jàkka jàkk ñëpp wax naa leen wax dëgg yàlla loolu daal laa bëggoon wax ak yow démb ma teel a tëdd ma ne su ma xëyee yeggee la ko dëgg la papa loolu yoon da sax nag loolu mooy yoon ndax nag yaay kilifa ki heure bi waroon naa fekk mu ñëw bu yàgg ngeen waxtaan te pourtant dafay ñëw sax ndax koroog maa ko forcé bu mu ñëw dafa jàppoon sax mais ma ne ko na ñëw rek ndax jot na pour ngeen waxtaan mais daa ñëw ba fi fekk nga tëdd ndax fan yi sa feebar beeg yooyu waaye nag du benn problème maa ngi moom a war a àndoon nii génn ñoo war a ànd génn nii ah. léegi moom moo war a ñëw jël si ma nii daan doo minutes mu yegg si léegi bu ko defee bu ñëwee balaa ñuy dem mu dugg si ngeen gisee ba pare. waaw ah, loolu dina ci baax waaw loolu dina ci baax. Ah, mm-hmm. eh, jëkkër moom yor ko yombul yomb na sax laa mën a wax parce que ñun na nga caga rek ah, waaw waaw moom moom boo demee na nga yàqu. Mm-hmm. boo yàqoo moom caga di ko def ay affaire yu bàndeeg yooyu moom. Mm-hmm. dina la gën a jàppale. waaw yooyu dama la koy jox nii rek xam naa du heure bi laa la ko waroon a jox sax waaye xam man sa baay laa te am naa ay kii yu ma la mën a jox ma daal la koy paas rek yow da ngay dëgg rek après gérer. waaw boo demee daal cagaal di ko def fu bànd yoo xam du ko may dara ay gajjeeg <laughs> waaw ay matt ak yooyu yenn saa yi nga saxaw ko mu yaakaar ne dangaa mer nga ko dama lay tooñ <laughs> xam nga yooyu yëpp ay xeetu jonge ay xeetu jonge la daal gis nga de sa bàyyi ngi de sa bàyyi de moom depuis <laughs> ah. booy daal nii la amel man kaf ree waxtaan ambiance daal béggee bàyyi di sax forom nga am

dóor yi ma dóor fan yii sama yaram yi métti ma bañoon la ko wax moo ma ko teg. kan kii. Hmm. kii yow. yow yow toj sa maari mu naan. commencé <laughs> toj sa maari mu naan tas tas tay yow. <laughs> chérie maa ngi kii dafa bëgg toog benn lastan nga waxtaan ak moom ci ñu doon wax léegi yow moom tàmm nga sëy yaag sama yaay moom ku ma leen présenté rek ku ma lu ma bëgg rek wala ma bëgg ko def wala nit bëgg ma rek ngeen commencé di indi ay affaire de complication faru rab bu soxor nga am bëgg ku baax yow mosoo xam nga lu ma bëgg nag nga xam ko papa mhm. kii moom laa bëgg mhm. te liñ doon waxtaan sànq na jéem a toog ngeen waxtaan ci te bii paa mu jéem a sotti ndax yi moom tàmm nga ko xama sa feebar bi danga cee man maa ngi dem damaa yàqamti chéri maa ngi lay xaar ci biti conseil <laughs> ya ya yi <laughs> ma la joxoon pour moom nag yàlla nga fàtte lépp ba doo ko utiliser ki yàlla jërëjëf ay yàlla jërëjëf lii nag mooy loo muñ mu jeex lii mooy loo muñ mu jeex la mooy sama problème non mais yow yow ngay gawar ngay nag wu mag waroo yàq mbokk ñi dañ maa nokk mbokk yoo xam ne lu tax bay yow lan mooy problème bi mais nii nii da nga sàcc daw du rocc affaire yi calpe bi ñaata moo ci manqué woon ñaari junni kon exactement dix milliards wax ji na jeex mais booy dóori ban dóoral na nga ko gisee. Euh, mais dool ci teg ci dara. daan la jox. dix kii moom bu ma ko takkul yéenay perte. ah da ngaa sëgg naa ci de. ah xam dama ni kumpa comme de pâte midi aña naa ci lu ne. da jaar nii. du day leer rek. jugal dem jugal ah, dem. moo gën a gaaw rek. di si bu mag def si lu la que nekkul sax di dolli ndey faatu. dolli ci biir ndey faatu.